sini jaar-jaaral dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam abonné wu ci seen youtube bu ñambi tv bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a vidéo yi ñu dugal su wasalaatu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi ajmain ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته taala nuyu mbooloo mi fi di nuyu ci yi di wa ci jital maulana cheikh Souleymane sang ñaan gaynde mbuddaay sang bi ñong lay nuyu bu baax di sant suñu borom bu baax ci yow ndax li yépp yow yaa ko waral olof njaay dafa wax ni liir su peccam neexee yaay jaa jàpp ci mbagg ya te yow kat yaa jàpp ci ay suñuy mbagg suñu demee tey jii ba ay nit di ñu yaakaar ci suñu borom suñu demee ba tey jii ay nit di ñuy déglu suñu demee ba tey jii mbooloo di ñu wuyu lool yi yépp yaa ko def si ñun lëkk nag su lekkee aloom daf ko war a gërëme cooy maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ki iñaanu ne di wa tax lépp lu waay di wax ci ñun lépp lu waay gis ci ñun ci mbaax jëm ji suma ginaaw sang bi nga xamne jamono ji moy xagalé jamm ci sunu borom moko waral duma ci len lepp mom la kon ñaan ñu ngi lay ñaanal guddu fan ak wër di la ñaanal saadatu daare ni mu baña and ak ben nat te mu baña and ak ben coono ya allah ñong lay sant bu baax li day suñ koy jëmmal su dul woon li nga xamante ni def nga si nun kon duñ ko jëmal parce que demoon nañ ba ni duñ sax cant waaye wax dëgg fa yàlla loolu suñ ko defee duñ gore ndax lu rëy li ñu defal ñu koy yëg yéene ko jaam ñi kon suñ la santul ndax ku santu nit doo sant yàlla kon suñ la santul rek gore wuñu waaye nag kenn lañ ci ñi nga defar bëri na fii ci mbooloo mi ñoo xam ne yaa leen defar ak ñoo xam ne ñëwuñu ñoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ak ñoo xam ne ñu ngi biti réew ñii nekk ay nit ñu ñuul ñii nekk sax ay nit ñu weex ñii nekk sax ay nit ñu xonq kon nag si liggéey ci pays bi si liggéey ci yoonu murit si liggéey ci ëxlu bi ci xuma bi rafet na ndax tàggat nga ay ndaw yoo xam ne tey jii ñoo ngi defaree tagat nga ay ndaw yoo xam ne ñi ngi tarbiya seeni moroom teg leen ci yoonu siraatal mustaqim xamal leen seen boroom ñuy jaamu suñu boroom te duñ ko bokkaaleeg dara liggéey bu rëy bu ton noonu su ko nit defee suñ ko santulee kan la ñuy sant te doomu aadama yi di santante dong ngir àdduna yow nga jël sa àdduna yépp 94 ba léegi lañ la xam 94 ba léegi lañ ànd ak yow mos mosunoo xam ci lu dul yàlla foo jóg di dem sunu borom moo la yëkkati ak cheikhul xadim Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasulillahi ak maam Moussa mi nga xam ne wax dëgg fa yàlla defal na cheikhul xadim li mu bëggoon mooy xàggale jaam yi ci sunu borom comme ni ko Serigne Saliou Mbacké waxoon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Tuubaa defoon ci mag ñi loolee la sëñ Moussa jaarale ko ci sa jëmm loolee lay def dafa mel ni rek dafa fel fekk ni rek tund wii ñun rek ñoo fi fare moo tax ñu ñi rek ñoo teew waaye li nga defar yépp suñu daje woon xajuñu biir gi xajuñu ci biir gosaas gi kon nag wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla suñ la santul gorewuñu ñu ngi lay bu baax di la ñaan nga gën noo ñaanal ba yaakaar bi nga am ci ñun yal na yaakaar boobu bu mu tas bu mukk yaakaar bi nga am ci jaam ñi sunu borom defal la ci lu wees sa njort waaw sang ñaan mooy koo xam ne yéen na ñëpp ñu mucc ginnaaw bi mu jotee ci mbóot mi nga xam ne képp kun ko def ci so ci yow sa yaram aral ma safara mu yaatal ko lool nag am ci ma ne lool yéwén ci lool def ci liggéey boo xam ne àdduna dootu ko fàtte Sénégal dootu ko fàtte kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñaan su ko defee xam naa ku lim doo juum danga nga dul mëtal ci subaak léegi li fi jaar ci doomi aadama su ma ko bëggee lim duma fi jóg te ay kilifa ci suba ba léegi ñoo fi toog ngir suñu jëmm ngir bés bii am na fi euh, koo xamante ni mi ngi jóge ci sëñ Muntaxal Mbakke yu jaar ko ci sëñ Moussa Nawel muy sëñ Moustapha Lo doomu sëñ Malick Lo bu ñoom rek nga xam ne yàgg na fi lool suñu bàyyi Cheikh Aliou Gaye ci suba ba léegi mu ngi fi ah suñu bàyyi ndeysaan euh, bàyyi kii jaw bàyyi Serigne jaw fii la yendu da di mag dem ba mënatul mu dem ki fi nekkal aussi euh, Serigne Saliou Mbacké di sëñ Abdou Diong ñëwoon na fi donte sax tànk yi neexul bàyyi Serigne Diop mag ñun tedd yooyu sooy yëngatu ci lislaam di yëngatu ci Sëñ Tubaa ñu jur la ci yoon bi ñëw nga wooleen ñu wuy la doy na sant suñu borom kon maa ngi sant d'abord sama mbokku cheikh yi nga xam ne ñii jóge mbuur ñii jóge gosaas ñii jóge fu ne ñii jóge njaareem ñii jóge fu ne ñii jóge dakaar ñii jóge mbudaay fu nekk nit jóge fa ñii jóge jàkkayel ñii jóge pobe fu nekk nit jóge foofu ngir bés bii kon damay bañ lim mu juum waaye ku ma tudd ak ku ma tuddul sama mbokk cheikh yi nga xam ne ñun lañu bokk cheikh la doo defaral nooñu te sang ñaan defar ñu yeneen sang defar leen ñu teew ci jootaay gis naa seen teewaay yéen ñépp sant naa leen maa ngi leen di ñaanal suñu borom ñu daje ngërëmu Maam Moussa maa ngi ñaanal leen ñu daje ngërëmu Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasulullahi ñoo ñii ñu tuddee politicien ñu jaar fi Eh, le maire Madiagne anak and ak seigne Massamba Diouf nga xam suñu and ànd yàgg na bi seigne Touba nga ko lal monsieur le maire Madiagne Seck mënuñ ko baña sante sant ndax ku dajali li soxla nga chaise soxla nga bâche soxla nga lek soxla nga lenen ak lenen te depuis bi nga xamanteni ñi ngi taxawal liggey bi ba legi mu nek suñu mbokku talibé loxoom mosu cee jóg kon suñ ko santul tamit dafay mel ni gisuñu lu mu def te loolu du doon ngor te yàlla xam na ni xam naa lim ciy joxe gisuma kenn ku ko ëppale ci lum ko jox te yàlla rek tax kon monsieur le maire ngënk àdduna di ko doxal ci ay tëralin ak ñi nga xam ne ñoom ngënk diine bi di ko doxal ci ay tëralin ñoom ñëpp dëkk moo leen tax a jóg développement doomu aadama mu am type doom boo xam ne constitution Sénégal def ko bëgg muy nit boo xam ne nit ku jub lay doon nit ku dul sàcc nit ku dul wuruj nit ku dul tappale nit koo xam ne daal du lore constitution Sénégal ne ne type doom boobu la bëgg diine ñëw ne dafa bëgg teg doomi aadama ci njub ci siraatal mustaqim istiqaama boobu nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi julli taxawal julli di tari faatiha yaa ngi koy ñaan eh dina siraatal mustaqim istiqaama boobu moo tax lislaam jóg pour teg doomu aadama mu nekk nit ku jub nga xamante ni dafay bàyyi lépp lu safaan bàyyi lépp loo xam ne sunu borom gërëmu ko yonent bi gërëmu ko kon ñoom ñaar ñoo bokk bëgg-bëgg waaye fi ñu koy jaare bokkut nitu diine bi daf koy jaare ci waxu yàlla jaare ko ci sunu rasulullah alayhi salaatu salaam ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ñànk le di ko jaarale ci tëralin boo xam ne doomu aadama moo ko tëral boobee mën na am ay faay mën na am ay manquement waaye tëralinu sunu borom du am manquement kon nag ñu ngi leen di sant ñoom ñépp seen coalition boobu nga xam ne ñëw na fi ndax nit nag ku la faale nag nga faale ko wax dëgg fa yàlla woote bii 25 novembre ba léegi Yaya jàmme la directeur de la rajo kooku tamit mënuma ko bañ a sant bëgg sang lool heure bu ma woowee lan la may njëkk laaj ana sang xam nga nit soo bëggee sëriñam mu bëgg la jigéen soo bëggee doomam mu bëgg la soo bëggee jëkkëram tamit mu bëgg la ñun ku bëgg sa ñu bëgg la yaaya jàmme boroom rajo bii nga xam ne vingt cinq ba léegi mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy jàllale suba ak ngoon mënuñ koo bañ a fay wax dëgg fa yàlla yal na seen rajo bii dem ba nekk ay tele télé télé wax dëgg fa yàlla yaaya ku baax la ku ma jàppale la ku ma jàppale la bu baax a baax a baax sant naa ko gërëm naa ko bu baax yaaya bi muy def spot boobu amul benn kilifa bu mu bàyyi ci biir Gossas le curé de la paroisse sax ki nekkal eglis bi jàngo bi tudd na ko amul kum tuddul ñun nag li ma wax sëñ Moustapha ci biir sunu jaan wàcc na suñu kilifa bii moo def ci ñun yàlla jox ñu ndigal ñu woote dimbali nit ñi ci yàlla ma woo ñëpp ku ñëw sant naa la ku ñëwul sant naa la waaye daal koo woo nag mu wuy si la sañ ngaa tudd kooku nag nekk ko jërëjëf ku la wuy si nga ñaanal ko xëy na mu wuy si la waaye kenn du wuy si woote bi nga xam ne gën na woote bii kaay leen ñu dem ci yàlla sëñ tubaab bi mu fi ñëwee fekkoon na fi ñuy woote waaye def ni minallaahi ilallaahi aynal muridu leehi siraati siraatikal mustaqim mën naa ko waxe noonu kon sëriñ bi mbindaa foon yépp moom la woo motax biñu def spot bobu bayiwuñu kenn kon nak monsieur le maire ak ñimu andal bok wizi ci ñi nga dañ ñoo jëlat sen alal sen ñak def ko ci bëss bi pour bëss bi taru wax dëgg feel mënu leen bañu tuddu ku japp nak dañ koy tuddu ngir peut-être dañoo farot ak yow wax dëgg yara ñun ki faral moy Cheikh Khadim Cheikh Ahmadou Khadim Rasulillah ki ñu faral mam musa sisar Cissé allah taala anhu ki faral moy jambar bi nga xamne li na ci man yépp moko def ci man kon dama bëgg gosaas yépp xam ni loolu mooy suñu liggéey jëmm jii moo ñu liggéeyloo te liggéeyloowu lu len lu ci nit ñi li sëñ Fallou Mbakke waxoon jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu sëñ Fallou Mbakke waxoon jaamu yàlla ci jaamu yàlla loolu moo waral lii kon nag ñoo ngi sant mbokkutaay bi nga xam ne ànd naak ñoom fii ci gosaas nga xam ne ay xale yu jàmbaare lan ndax samakatu mbott moo xam ba soox ak ba fu ma leen woo guddi ak bëccëg suba ngoon ñu wuy si ma ngir lii wasaaroo ci dëkk bi kon sant naa leen bu baax su ma leen su ma waxee mbokku taalibe soxna yi dugg nañ leer yi dugg nañ dëkkandoo yi dugg nañ waa jaxaw muy koñ bii nga xam ne fii la ma yàlla dëwal ci ndigalam maa ngi leen di sant di leen di leen di leen di leen gërëm bu baax a baax a baax ndax nag du ren rek lañu woote te heure bu nu wootee Yalla, xam na ni day tay ji événement yi bari na lool waaye da ngeen bàyyi lépp ñëw suñu ngir jëmi yàlla kon yéen waa jaxaw góor ak jigéen mag ak ndaw sant nañ leen gërëm nañ leen am na suñu jigéen ñu jógee ba fiisal mbaadaan ci ngoon ba léegi ñu ngi fi nekk ay suñuy collègues yoo xam ne jàngale lañ bokkoon yàlla àtte ndeysaan ñu nekk suñuy wëllëre jóge nañ foofu ñëw ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant bu baax soxna ñi nga xam ne dama jàngandooloon ak ñoom francais defandoo ñoom ak CI 1981 ba 1987 ñooñee tawit bokk nañ ci ñi nga xam ne dama leen a cëraloon ci bés bi soxna Koddu Diouf nekkal leen fi kon soxna Koddu ci turu ñooñee ñëpp xamal leen ni sant naa leen gërëm naa leen di laa ñaan sëriñ bi mu ñaanal leen sunu boroom yokk leen sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax sant tamit eh, ñi nga xamante ni samay goro lañ jóge ba Dakar suñu papa Abdoulaye Ndiaye nga xam ne mom yow do sama goro sama dom nga yaay sama taw jité len di mak tay da doon tuddal domam, waye une heure la Dakar wa kërëm yépp demb fi lañ nek kon sant nañ len papa Abdoulaye sant nañ len bu bah a baax baax gërëm nañ leen man nañ len wax deug fa yalla di sant aussi mère Soda ki rakam sant nañ leen bu baax gis nañ seen taxawaay ndax nit nag wax dëgg fa yàlla di day gore wax dëgg fa yàlla sant nañ leen bu baax sant soxna Fatim sax na soxna Fatou Thiaw yéen ñëpp sant nañ leen di ñaan sunu borom képp koo xamante ni ñëw nga fi ak aajo boo fi mën a indi yàlla na sunu borom saafaral la ko ci barke jëmmi ji nga xam ne liggéeyal na sëriñam ba mu wax ko ni ngërëm gi ma sëriñ Tuubaa gërëm gërëm naa la ko kon ku mu gërëm nga am ngërëm wax deug fa yalla kon yalla sunu borom bepp aaju bu fi way indi rek yalla na ko yàlla faj bu feñ ak bu neub bepp jangoro bu doomu adama indi yalla na ko yàlla saafara yàlla yokk ñépp ndax fa in shakartum la azidanakum kom ku sant mu doli la yalla na ñep rawati rawatina sama mbokk cheikh yi nga xamne bëgg nañu liggéeyal Serigne Touba bëgg liggéeyal mam Moussa ma ngi leen di daganal ci sunu bëss bi nga xamne suñu serigne moo ko suñu borom jox ñu jumtukaay zaahiratan ndax jumtukaay baatini yéen a ngi ñoom suñu borom jox leen jumtukaay yi ci zaahir ba lu ngeen bëgg liggéey seeni sang yàlla mën loo leen ko loolu rek moo leen dese yàlla leen ko yàlla defal ci barke sang ñaan barke maam Moussa barke Cheikh Muntaqa Mbakki yu waaw jëmm jooju nag mënuma ma koo bañ a tudd ndax Cheikh Muntaqa al Mbakki mi ngi won nit ñi yoon kilifa la boo xam ne bëggul sax nekk kilifa nekk bayfaal mom tamit wax deug fa yàlla mënunoo wax ci seigne touba mukk mu nekkal fi seigne touba nek khalifatul kham fi tariqatil muridiya te ñaanalu ko mu yàgg fi lol te ànd ak wér ci barke sang ñaan ñoo ngi ñaanal Cheikh Mountakha téeméeri at ci teg lol te mu ànd ak wér yal ko yalla defal ndax won ña ñep yoonu talibé oyof tol te dip sëtub seigne touba gis ngeen en 2000 yakarna naa euh, cant yi wess jaral nako mu joge Touba dem ba daru fekk Cheikh El Hadji te tuuma yi bëri woon nañ ñu naan ñoon ñu bokkuñ ci yoonu murit bokkuñu ci yoonu murit xalifatu xalifa sëriñ Touba bëgg woon ñépp ni comme nekkuñu ay murit man mii xalifa maa leen di fekki romb fii ay doomam dem ba Saalum dem ba Daaru Kër Mor ja wax fa wax ju rëy fekk naa fi lislaam fekk fi tawhid fekk fi ni ñuy xàmmee yàlla ak xam niñ koy jaamoo vidéo boobu yaakaar naa ñépp gis nañ ko kon képp ku doon wax naan maam Moussa du du du du murit maam Moussa Cissé doxee njaare doxe daaru kër moo Xureja ba njaareem gii yóbbul sëriñ Touba lem sëñ Touba jox ko leer moo yóbbu woon lem indi leer kon ñi xamul suñ ne kooku nekkul ab murit ñoom ñoo xamul lu maam Moussa nekk dëgg dëgg murit la muridu laahi la dem ci sëñ Touba ñaar yoon ci ndigalu way juram way juram gërëm ko ba sëñ Touba gërëm ko kon kookee kenn gënu koo doon murit te xam borom bii nga xam ne ñu ngi ko doon weddi mu ne dog naa dagg naa ngeer yi nga xam ne sëriñ si fa lañ doon làqatu sëriñ si di di exploité taalibe yi rek soo ñëwee ngay joxe at yi rek te duñ la jox dara maam Moussa ñëw nag dindi loolu sëñ Muntaxa al Mbakkiyu xamal na la ni yaa ngi ci yoon bi kon sëñ Moustapha yaa ngi ñuy jàppale yaa ngi ñuy encouragé sa jur lañ amaloon kóllëre mooy sëñ Malick nga xam ne sëñ Touba moo ko tuddoon ci loxo boppam feral ko ci loxo bopam mu doon wax naan ñom rek gi sank lañ sax su ci dugg ma ngoy gis ma daan fatu ak mom mu may wax lu bari lo xamne sax nit dekk na ñom rek waxoko ko won wan ma mbindu Serigne Touba wan ma yere Serigne Touba wan ma seetub Serigne Touba wan ma karawu Serigne Touba xam nga koko xootna kon mu domam mo tew ni nek sama lepp kon munuma malabanya baña sant ñu ngi lay sant bu baax fi nga fekkoon sa wayjur tek fa tankam yalla nga sut len ay fan te li ñu naaloon te àggalewuñ ko yàlla na nga ko àggale ci jàmm ak salaam ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ndokkeel ci yàlla bu baax a baax kon nag yaakaar naa fàttewuma kenn su fekkee damaa fàtte kenn ngeen déema léegi ndax bëgguma fàtte kenn sant nañ ñëpp gërëm ñëpp waaye nag lii yëpp daal sang Cheikh Souleymane Niane moo ko waral muy jëmm joo xam ne dama bëgg Sénégal yëpp bàyyi xel ci moom dama bëgg Sénégal yëpp bàyyi xel ci moom te bañ a parparloo gis nga lislaam su amee par parloo rek dëgg dëgg dëgg sori na fa waxtasimoo bi xablillaahi jamian wala tafaraxoo loolu la yàlla wax jàpp leen ci buum yàlla bu dëgg bu dul warandiku te bu leen xaajaliku buum boobu nag mooy kalimatu shahaada mooy kalimatu ulya mooy kalimatu xaq mooy kalimatu laa ilaha illallahu yaakaar naa képp koy dugg ci lislaam baat boobu bii ngay seede wax nañ ni tamit képp koo xam ne yaa ngi génn àdduna kalaam baat boobee mucc ci sa lamiñ mucc nga ci safara kon ki nga xam ne dafa dundal baat boobu def ko ci ay jaam waa këram di tudd baat boobu wax dëgg fa yàlla ku jar xel la Cheikh Souleymane mi ngi def liggéey bu am solo liggéey bu extraordinaire gis nga ku mel ni moom moom la Macky Sall waroon a gëstu jàppale ko ci zaahir bu baax jox ko moyens yi mu liggéeyee ndaw yi ndax mi ngi def liggéey boo xam ne jubal doomu aadama benn doomu aadama nga jubal ko benn laa wax jot nga sa bopp ci safara te kii jëmm ji li mu seexal ci ay xale li sëñ Salim Mbacke waxoon mu donn ko ci ñuy defar ñeneen man de maa ngi nii gosaas ku gis sama taale bi buy tux ñëwal fii nga wax ma ko ñoo ngi nii toog waa gosaas xam nañ ma donte mbuur laa dëkk 2000 ba léegi maa ngi fii ku gis sama taale bi buy sàcc wala buy tux wala muy def naka su noonu taxawal fii wax ma ko amut te loo lii ci moom mii lañ ko jëlee ci moom lañ ko donee ndax doom ndax liir laa bëgg a wax du gàll mukk lu dul lum namp kon nag ma bëgg senegal bàyyi xel ci moom ma bëgg nit ñi bàyyi yite ci moom sëriñ si wax naa ko keroog ci émission bi dinaa ko waxaat su wéree ni ñoom ay nittu yàlla lañu nit sa nit fu mu nekk danga koy xam dañu waxante dëgg Macky Sall sama nit la xamoo fu makki di yendu xamoo fu muy fanaan nga ne sa nit la doon sa nit des na ñi nga xam ne nitu Macky Sall lanu monsieur le maire bii bokk ci su soxorut nga soxla makki day jàpp ci sa loxo ba ci Macky amul audience ne la Macky ngi nii makki jox la ay million kon ñi de seen bopp nitu yàlla su fekkee ne ay nitu yàlla war nañ xam fi yàlla ne nañ fa yóbbu jaam ñi nit ñi yàlla moo tax ñuy woor bëgg yàlla moo tax ñuy julli bëgg yàlla moo tax ñuy dem ba Makka di xencu leeru rasulullah alayhi salaam bëgg yàlla moo tax ñuy joxe azaka bëgg yàlla moo tax ñu topp sariyatu kon nag képp ku ne yàlla sama nit la kaay leen wuy si ma nga xam fi yàlla ne war nga faa yóbbu nit ñi yaakaar naa yàlla moom ku ko gis sa affaire baax barke Macky Sall mii lu mu nay nay nay soo ko demee seeti soo ñibbisi dina la jox paas un million lu mu nay nay laa wax un million nag am na lu mu mën a faj yow nga ne nitu yàlla nga nit ñëw at bu ne di la nga koy tufle rek sa mbir di baax yow sëriñ bi te moom mbiram du baax yaa quelque chose sëñ Tuubaa waxoon na ko ñaar suñu àndee ren ba déwén kii jub te kii jubut am na ku ciy nax morom ma sering dafa am sayyidna Ousmane Diagne wax na ko keroog suñ ko waxé nit ñi dañuy japp né xasaate la do xasaate sering sax du sering njëriñ la njëriñ turu sering moy njëriñ ki la mëna jëriñ ci yalla waye képp ko xamné ya nga woté wo nitu yalla di wo nit ñi di leen dajalé té mëno leen xàggale ci suñu borom mëno leen ko woon balaa nga jéggi sirat jëmmi doomu aadama bu la topone di nga lijjanti ay mbiram fo jëm bi ku ci dugg allahu akbar xoolal soo sanguwu rek taq suuf soo tëddee sa kawlal day xejam waxuma nag ñu gas ab pax juróom-ñaari mètre percal dong moo rey wër ñu jóor la suuf ba nga ne ngodd bàyyi la fa dem fanaan ak seeni soxna lekk seeni yàpp ñetti fan ñu fàtte la gis nga loolu ku koy fàttaliku bëgg dara ji ci kaw suuf su taxee ngay woo doomu jàmbur te mënoo leen xàggal ci suñ boroom di nga dajeek moom kii ñu àndal caaxaanul foowul maam Moussa dafa am ngërëmu sëñ Touba wéet ak sëñ Touba ñaari yoon kenn ñetteelu leen ku dul suñ borom sëñ tubaa jël loxoom bu tedd bi teg ci kaw boppam ginnaaw bi waajuram ñaanoon ni kookee gërëm naa ko Mbakke defal ma ci moom sëñ tubaa ne dinaa def ci moom lu wees sab njort def na ko moo tax maam Moussa nekk phénomène boo xam ne dafa bett góor yàlla yi ñu naan kii fan la jóge fan la jógee fan la jógee joueur bii di dugal rek saa yu ñëwee rek dugal bii te kenn yaakaaru koon ci woon ndax siiwul loolooy maam Moussa yaakaar na nag daj na kap àdduna bi man mii day gosaas gi amul kenn ku nekk ci diine ku ma mën a xas su dee julli maa la dàq paxa gee laay ndax xalif général moo joxe ndigal ni képp ku murit sa jumaa moom mooy jumaa jee nga xam ne maam na Jaw paxa sanc na ko ci ndigalu sëñ Tuubaa ndax moom sëñ falu Mbàkke moo ko yar looloo tax ñuy wéy ci ndigal boobu bii ñun duñu faat waxtu dañuy jàng alxuraan daaraa ngi fii sama kër xale di watu alxuraan sama jarbaat bi yor ñun duñu ay jaay yi jàng sunu nasaraan ñun ñii di wax xam ngeen ni xale bu ma yorul fii ci gosaas jàngal la bariwut jàngale naa CI ba terminal classe yëpp yor naa leen xanaa université laa jàngalewul te lool lii li ma ko xañ damaa bëggutul dara jëmm ji su ma ko newoon professeur université laa bëgg mu defal ma ko waaye bëggatuma lu dul di liggéey di wàcc naan yàlla nee na yonent nee na Serigne Touba nee na maam Moussa nee na maam Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu laa tànn kon nag bu kenn jàpp ni lii ñuy woote ay mboosoor la bépp kilifa bu ci àggul bul rëy kii soxorul soo ko jegee moo xamal la ko nga dem dimbali sa mbooloo gis ngeen sunu boroom kenn réyul ci moom amul benn sant bu tiital yàlla ñépp moo leen bind kon ku jàpp ni man nga am yax bu rëy boo juddoo allahu akbar ba tax sunu borom du am fu la wéet ak yow ba nga yaakaar ne yow dongal bind te fekk bind na ñeneen xagoo ci xagguwaay yi na sëriñ si bàyyi caaxaan yi nañ gindi jaam yóbbu leen ci suñu borom dafa jot naxe bi jeex yàlla des koy xam yàlla des koy xam am na ñoo xam ne nag ci biir dëkk bii nee nañ addis boobu wérul addisul qudsi ndaw alwa bu gàtt addis boo xam ne sunu borom moo wax ci làmmiñu rasulullah alayhi salaa salaam lii di alquran bii ñu tuddee téyit bii sunu borom doon ko la ci jibril alayhi salaatu salaam muy ji ñëw ci yonentu yàlla Muhammad salaatu salaam ñaar yooyu ban moo gën a nañ ko xoolaat hadisul qudsi yàlla moo wax directement ci làmmiñu rasulullah alayhi salaatu salaam alquran bii ñuy jàng yàlla moo jaaral ci jibril mu indi ci moom waaye bi yàlla wax directement ak bii nga xam ne nag jibril ci moom la jaar nit ne ma naa wax ni wirut neel arrangé wu ma ci la sunu borom ne xam leen ma njëkk doog maa jaamu waaye su ngeen ma xamulee ana nan ngeen may jaamoo gars yi dawantu ne kon dem leen xamee alquran hey xam waxu yàlla bokkul ak xam boroom wax ja bokkut nañu teey le besoin de pouvoir bokkut kon su ko defee nañ bàyyi xel ci ci jëmm ji am na lu mu wax indi Sénégal jële ko ci sëriñam nañ bàyyi xel ci moom nañ ko déglu nañ ko jege bépp kilifa boo xam ne nag xagoo ci loolu soo ko jegee mu dimbali la nga dem dimbali sa njaboot ndax moom dafa bëgg ñëpp mucc mucc waay waay waaye loo xam ne depuis bi àdduna sosoo ba léegi ñu koy wut ne kenn amu ko lool mën naa am te safara ñu koy am rek gars yi di tabal safara ñu ne ajana kenn mënu koo am sëñ tubaa am na ajana am na assurance am ku ko ragal wax da nga koo amut

képp ku bëgg a dem ajana faw nga am passeport sinon doo dem soo demee ba ba ba aéroport ñu laaj la say kayit matut aéroport mooy saawaay jéggi siraat ba suñ la lëj mbëtee amoo passeport ajana mooy xamoo borom bi kiy jàllale doo dem loole nag cheikhu mu rab rek moo ko mën a def ci nit kon message bii lañ bëggoon a jox askan bi ma bëgg ñépp bàyyi xel ci sang bii mu ngi dëkk Mbudaay Séeréer fekkoon fa ab jinne bu soxor boo xam ne da doon moyloo nit ñi yàlla di leen jaamuloo xërëm bëccëgu ndar kam jëmm ji toxal ko loolu lañu ñu doon fii képp ko rab jàpp fii lañ koy indi day wër ci sëriñ si ñu lay laaj téeméeri junni di la laaj lu ne ñu ne demal ci Cheikh Bamba taalibe sang ñaan soo ñëwee fii ñu tuubal jinne bi mu nekk taalibe Maam Moussa ñu bokk di ko jaamu bariwul kër yu ko mën a weddi fii de bëriwul kër yu ko mën a weddi fii de bës bu nekk ngeen gis xale bu daanu ñu indil ñu ko fii ñu tuubal rab bi wax ak moom mu ne tuub naa nekk naa taal bi maam Moussa Cissé di wax laa ilaha illallahu loolu sang bi moo ko def si ñun ci moom lañ ko donne moo toxal bu mbu ba toxal fépp jox ñu siru bi kon nag kii ku jar a xam la su ko defee ñoo ngi tuub di lu baax ndax depuis booba ak léegi ci suba ba léegi yéen a ngi toog ngir suñu jëm ñenn ñi bëgg nañoo dem waaye am nañu kersa ngir rek ndeysaan rafetaay jëf ci mat ga la sëñ Tuubaa wax kon ñoo ngi wàcce suñu kaddu fii jaamuri te amu leen lu ngeen leen jox sëriñ du ndonn su doon loolu soxnaay gaye nga nee toog ku ñëw sa bëñ am jafe-jafe fekkoo fa docteur gay waxal soxna si jaw dindil ma ko xool ba xam su ko dindee soo moytuwul foofu ngay jaar am problème kon mbir mi du ndonn mbir mi mérite la dañ koy wut moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall wax ku ñaan ñàkk waaye ku jënd yaa moom keroog bi mu ñëwee ci suñu Tuubaa jàkkaarloo moom dafa am fu la ne ko Mbàkke damay topp tànk yàlla ba mu dugg sa biir kër gi soo dul suñu borom won ma fu mu ne moos day su ma xamoon fu mu ne doom fu fekk mu ne ko xanaa kon Mbàkke li ma bëgg am yaa ma ko bëgg a xañ mu ne ko déedéet loo fi amul yaa ko bëgg xañ sa bopp ci la dëgg bayit boobu tuubaa li abdin muridin saadiqin laxumu bi xidmatin aw bi hubin aw bi hudiyaatin Touba mooy texe texe goo gii sëñ Touba indi jox ko maam musaa képp ku ko bëgg dangay ngay jaayante ni Cheikh Ibra Fall defe woon soo jaayantee da ngay sopp soo dee mag Pa Aliou gay mii tey jii su soxla woon loolu ci ñun nekk sama moroomu baay bàyyi Aliou Gueye mii war naa ko su ma amee tegin war naa koo mën liggéeyloo sama baay sopp lay def gone gi ñuqi joxe addiya sant bu baax di la gërëm bu baax di tuub di jéglu bu baax ci kaddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati sa kanam waaye bëgg fësal li nga def suñu ndong moo tax kon wa wa wasalaamu ala rasulillah wa maulana nabi lumi wa ala alihi wa ashabi ajmain wa qadimihi cheikh mat bamba khadim rasulillah jërë ngeen jëf suñuy yar jaar daal ñu nekkal la ñu bañu lépp bëgg xam-xam danaa wax ni su ko xaridoon jar danaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV.